tabaski dafa yegg seeg waaju baax ee eh, tabaski dafa yegg seeg waaju baax xoolal mangalang ak jéeg ya may saar xoolal moo ne leen waan tootiri fo fii fii mooy fan fii mooy fii mooy fii mooy marché waaju baax lu mu naan waaw toj sambaari ee waa koñ bi kaay leen waa koñ bee nu danga soxor waa koñ bee gaay leen seetaan waaju baax ñu soble mu jaay diwtiir mu jaay ngay reetaan may kontaan damay neex gis nga mais war a du toog du toog ah ni ngay bàyyi nii nii nii la koy bàyyi nii la koy bàyyi loo wax kilo liibar non kilo rek baax ci laa poobar bi. poobar benn poobar baax na. baax na waaw. Ah. ñaar lay jaar sax. poobar benn juróom ak laaj bi laaj. daxaar bi. daxaar bi sax dafa ñaari mbuus. ñaari mbuus. am <laughs> daxaar mais waree bi mu safee. da ko ne ma géej bi ma xool. géej bi est-ce baax na sax lii. ah ma ni foroxul de. lii di géej jaww bi. est-ce que forox na. forox toll la def. ah jaay ma rek. mais wala mooy saf la de baax na kaani bi aussi. kaani ñaari mbuus. benn baax na benn mbuus yaay eh, bëggul kaani. calculer ma lépp ñaata la. 650. dégguma. 650. 650 juumoo. non juumoo Ndiaye may waree la. bee nag. diwtiir waaw. xale <laughs> bëgg na diwtiir de kaay bu ndaw na. butéel bu ndaw bi moom laa jëloon sax. <laughs> ñaar lay jar. ah loolu diwtiir moom jël ma may juute dafa seer teg yang ñaata lay jar. jëlal may rek. waaw. ma waaye damaa yaakaar damay toog gaañ. doom ca fi sa numéro. sama numéro. waaw. pour lan. nga doxaan ma ma nangu. xam lay ah man. pour la waaw. yow sa lépp ñëw na ah moo tax ma wax nag naan si nañ. amay nag de. lali naa la yëgal ma bu ma sa moroom. yow taloo sa njaay mi ngay tal ay doxante numéro ki doxaan man maa lay doxaan xool nga ma ba si awal kon man ma xoola man mën naa doxaan ma maa seex ak yow ay doxaanante. wa ma njëkk tay na mujj tay mala may duty eh soxlo ma nga may ma duty ma la wax awmul moko jende ran xol jëndee. Orange xool suñu mu ñëw de mala la. ma la eh wax ma ñaata lay jar man damaa yàkkam ci. jeul graw teel sa duty ma njëkk tay na mujj tay na dégg nga ak fayda boy bëgg a dem moo fi ñëwatee nga xam ay waxe doxaan di nga xam. te daru na de wala ko ni duggé mo baxul baaxul. ala Omar bu duggé rek defet te daaru naa nag. waa koñ bi kaay leen Aliou am naa lu ma metti torop yow lu lay metti lan mooy ndey bàyyi may dem sa marché ba ñu nekk foofu ñooñ di jaay si vite fait boobu marse bu ndaw boobu ñu may doxaan di ma laaj ay numéro yu ñàkk fayda yooyu xanaa waxoo ma paa bu ndaw beeg waayam ñu ëppal jooju xam nga ñu ma lay wax man du ma n'importe kii ba fu ma jaar ñu ne ma dama laa wala jox ma sa numéro boo ko mënul lijjanti nag ma lijjanti ko loolu jëru xuloo jëru xeex na sa xol sedd yow demal nga taal añ

fa ngeen luyee woon. waaw huit mois. ay fayu lu tax. ah fayu moo taxit de. ci hôtel yi bu ko waxatee bëtt gi mu kaw ko fii moo taxit mi ngi dee. eh booy dalaa waxal nga may xool si bët tapet yi kon moo doon doxaan sama booy bu sànq ci yéen. waaw nee na ma fii la ñëw di jënd si ba lay laaj diwtiir xob nga koy laaj ay numéro man dama génnoon de. kan la moo tax ma ñëw fi muy nelaw nelaw. Eh, ay kii eh xoolee eh ko dóoree fii de mu tëjee ko yóbbu mu dóor ko foofu moom. dóor ngay kii moo koy yóbbu biir géej tëmbal ko. mais wala maa ngi génn ñëw yow fan nga jëm. maa sàccee paa bi ñu ngi sàcc paa bi ñu ngi sàcc paa bi ñu ngi sàcc paa bi ñu ngi sàcc paa bi ñu ngi sàcc paa bi waaye sax eh wol eh, eh, eh, police wol police wullee wulli wulli munuma si dara gisuma ku la jàppale gisuma dara ah nga mel ni xob ni neexa dóor bay bëgg de te doo jóg si tooj toogal di nga dee bañ a la bàyyi punkal mii rek bañ kaa bàyyi rek ngay appal noonu yow fan nga nekkoon ba ngay wax laa ni la maa joor mi ngi nii gis nga punkal mi ko fi yenu woon ah. du koo dóoru dóor ba muy bëgg de maa ngi ni maa ko boot indi ko dóori saf na waaye muy yow yuuxu naa fi wallu bay bëgg de gisuma kenn ku ma ko dimbali maa ko bët andi ko nii. dañ ko doon sàcc élection yi ñëw moo tax. élection yi tax dañ maa sàcc ñoom sàccatuñu ay xale paa yi la ñuy sàcc. surtout yow sa genre yi. man lu ñu may lu ñu may doyee. la may doyee waree. kii de xaw na kaa rey. dóor na ko. bañ a dóor. dëkk nii mu toog gisuma ko ma ko jàppale. ba dóor saf na rek. naa ko nga doon nelaw kenn sàcc la moo la tayle. punkal mi fi ñëw ne yaa doxaan gele mu ne yow yaa ko doxaan moo tax mu jënd la yóbbu. jaruma xoole yaa ka def. waaw ba yow de bi muy la dood ak doo ko yu ko raw. kaay ma sonn naa torop. sëgal. tey jaruma xoole. wan ma ginnaaw li ma la àtte. lala punkam ma wan nag wan kaka. bu ma oo de. ware maa ngi dem gendarmerie boot ma yóbbu ma gendarmerie. mu ne waaw bootal. boot ma yóbbu ma gendarmerie. bootal mu dem porte plainte bootal. damay porte plainte. bootal. dama la ñu sàcc. damay me plainte. kan lay é plainte. nan é rek. ñëw waree. ku é, laaj ku may como é lá, justice. waaw demal. mais waree yow yaa ma. eh kenn daal é, é, jàmm. ma oore ko ma oore ko ñëw. yabaate bay bëgg a dee fan bay bëgg a dee boo doxaane doo wax yaa doxaan nga kay tay la ki nga xam te daa yëngu wul bay bëgg a